asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax a baax jeex leen pour ñi nga xamante ne à chaque fois damay wax Mouhamed gisuma Senfootball TV 2 boo demee ci am na benn lien bu ma fa teg boo cliqué di nga mën a dem foofu abonné gis découverte ne maa ngi koy dugal foofu booba léegi ngeen jàpp nag ci combat bu baax a baax léegi nag dafa am benn question bu xamante ne day ñëw souvent dañu ma koy posé dafa bëri lool donte def naa live ñu waxtaan si ba pare def naa ci vidéo mais gars yi ñoo ngi insister Mouhamed Diop ndax dëgg la ndax du dëgg alors que def naa benn vidéo ma expliqué carrément man li xalaat li jàpp xam personnellement nag moo tax may wax gëwuma affaire bi donc comme que gëwuma ko aussi mun ma ñëwaat defaat benn vidéo di leen expliqué leneen bu xamante ne voilà information bu dëgg taxaw fi li wax. je pense que leer na nañ euh, kii joxe information bi moo fi joxoon information comme quoi euh, Issa Diop day joué Maroc moo joxoon information comme quoi Sofiane Diop ñoo na Maroc dinañ ko gis si liste bi gis ñu ko si liste bi boo demee nga laaj ko source am fa la ko jëlee danaan voilà du joxe source am donc benn kii rek benn journaliste comme ça moo ñëw joxe c'est pas benn journal bu mag a mag a mag moo ñëw publier wax ñu ne journal tel journaliste moo waxoon lii mën ngeen ko gëm c'est pas ça donte nag taskatu xibaar yi nekk France nag ñoo si commencé wax quand même ah, foot mercato wax si par exemple wax na si bind na benn article mais même article bi xamante ne Wii Sport moom la relayer ak site yi nekk fii Sénégal foot mercato moom la def foot mercato demul def ay investissement boppam ba mu am lu ko leer nañ pour wax ne Sofiane Diop lay choisir Maroc auré la ñuy wax boobu tey donc ba tey kenn mënu jàpp ne loolu dëgg la wala du dëgg mais ku nekk nag sa xalaat quoi man nag lenn mën naa leen ko wax pour le 26 août 2021 normalement wa Maroc si la joxe liste voyage si lay joxe liste parce que nous aura a am ñaar jogante le 1er septembre ak 5 septembre 1er septembre contre Guinée 5 septembre contre Soudan donc 6 août plutôt lay def ki am euh, liste mais ba toog di xaar bés boobu bu defee listaam dinañ xam ndax Sofiane Diop si bokk wala ci wala du ci bokk mais comme man ni mu leen ko waxee Sofiane Diop mën na football trop Sofiane Diop soxla nañ ko trop si si nationale du Sénégal mais bu ñëwul aussi tamit c' est pas la fin du monde am nañ neen joueurs macha allah comme ni mu leen ko waxee ah U17 U20 U23 bi ba si ñi nga xamante ñoom ngi bitim réew xëy na saison bii nii si la nekk révélation comme Abdallah Sima ni nekkee révélation daaw. voilà Sénégal moom bëri na ay ay joueurs soufiane Diop bu ñu ko ñàkkoon du ñu yàqal dara donte nak soxal nañ ko trop donc euh, question bi ni ñi ma koy poser dafa bëri lool Instagram euh, WhatsApp suñu groupe yi fess na d'ailleurs sax 1 2 3 ma leen remercier pour ñeneen ñi ma wax quatrième groupe nak def naa euh, beneen lien bu xamantani Telegram la parce que foofu mën na nit ñu bëri bo leen demee fo mëna ngeen abonné quoi xamna ni peut-être nag dinaa xalaat pourquoi pas d'autres quatrième groupe football TV donc mbokk yi nag maa leen jaajëfal bu baaxa baax di leen wax ba benen sur football TV. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen